asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokki Leewtoo TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ñu taxaw nag arène nationale bi nga xam ne nii mooy sunu arène bi nu moomul sunu bopp ñun waa làmb waaye sax dama naan waa Sénégal ndax ñëpp mën nañ ko jëriñoo yaa ngi dégg tey nag dañ fee ñëwaatoon ginnaaw incident yi fi amoon bëri ki démb ci làmb ju nga xam ne amoon Khadim Sam tëggoon ko mu doxoon ci diggante Alioune Seye Junior Alioune Seye 2 a ak ki nga xam mooy Eumeu Junior la garaaw nag mooy coow la ca am xeex ba gaañante am ca naaj am ci deret génn ba ay sanction daal di tabbi ñu aj Alioune Seye 6 mois ñaq jëriñu at ñu aj ko ko mook écrit ba mu bokk yëpp kenn dootu ci bëre fekk atum yàlla ka nga xam ne moom lañ jàpp ne moo def mbiré tamit ñu aj ko à vie dootu ñëwoon xool si ko yaakaar naa am nañu fi ne normalement buñ fi duggee dañ fi fekk ay nit yoo xam ne nii moo xam wàllum sécurité bi la wala ñi nga xam ne ñoom lañ dénk wàllum infrastructure ba xam ndax dañoo nar a jëlaat yeneen dispositif concernant arène bi li ci suñu kanam ndax taal bu tëye taak noo ko uppee rek maar da koy jar waaw gis nga chinois yaa ngongu waaw mu mel ni kon yàgg ah waaw la ma la daal ki ma fiy seen dafa mel ni moo yore wàllum infrastructure yi maa ngi fiy seen tamit waaw le commandant mu mel ni kon daal sécurité bi daa mel ni gars yi fas nañ ko yéenee yeesalaat indiwaat yeneen taxawaay ci arène bi parce que nag di defar ñu yàq moom mënta ne moom caabi yaa ngi maar lii mooy caabi arène bi gis nga chinois yëpp ay kele la kele yaa ngi nii caabe arène baa ngi nii yàgg maar yëpp ay kele bu ci ne am na fu muy ubbi kon daa mel ne arène bi war nañ ko gën a mën a sàmm ndax am na ñoo xam ne tey ñu ngi naan ñun waa làmb waruñu woon ñu ne defal arène bi waroon nañ ko defal ñeneen comme ñun la yàlla tombeel ñu defaral ñu ko tey ñu koo sàmm te bañ koo yàq parce que nag waa football amaguñu lu mel nii waa basket balaa ñoo am ñun am nañ ba pare. donte ñun ñëpp bokk réew mi ndax stade yëpp sénégalais yi ko moom waaye nag tàgge boo gis am na jàppal diw yaa ngi dégg lii pour làmb la saaku yaa nga ne ngay séen gis nga jot nañ fee damm ay sées loolu encore une fois ñu di ko ñaawlu di wax ni ka rek ñoo bokk Sénégal lii pour ñun la même bu dee dañ na siin dañu ko may sax waaye defuñu ko siin biir Sénégal fii lañ ko def kon ñoo koy jariñoo est yi dégg kon nañ ko sàmm yëfu réew mi la alalu réew mi la nañ ko sàmm. mais xam nga damm gis nga barrière yaa ngi nii ah ñu sànni foofu nga fii la cumukaay yi nekk te yëpp yaakaar naa war naa jël gën a jël ay dispositions ba nga xam ne nii ëllëg yaa ngi dégg dina affaire dina gën a mën a normal daal xam nga parce tamit lii macha allah maar bisu bu rafet rafet la quoi kon. xanaa ñu dem léegi jëlal leen ñi nga xam ne nii ñooy waa sécurité bi ak ki nga xam ne moo yor dis maanaam wàllum infrastructure yi du mën a ñàkk ci ministère des des

parce que le commandant de la zone, euh, commandant du corps urbain de euh, Dakar était là avec le commissaire euh, de Guédiouaï et euh, euh, le, le GMI, les responsables, et commissariat Pikin et tout. dañu ñëwoon tey accompagner le CNG en tout cas ak ministère de sports parce que ñu ñëpp euh, umpale woon ni dimanche bi passé combat bi mu fi xewee ñi gis image yi en tout cas ci Sénégal ñoom ñëpp seen xool tooy na ndax dañu xam ni làmb mérité wul lii dañu xam ni sport mérité wul lii d'autant plus que sport daf di loo xam dafa war a dajale nit ñi donc warul ñekk di féewaloo bay indi yu mel nii bu ngeen xoolee euh, am na ay conséquences yoo xam ni am na ci matériel bi seen chaise yi liñ ci yàq lu bëri euh, yàq nañ ci lu bëri et je pense que euh, loolu lu ñu regretté la am na fi aussi ay cas de violence ay xeex loolu amee responsable sécurité yi ma toog xool waxtaan ensemble ñu nan la ñu mën a def pour que yu mel ni dootul amati et loolu mooy nan la ñu mën def pour améliorer sécurité bi maanaam kaare kaaraange euh, organisation bi bu ñu organiser lamb mais aussi kaaraange arène bi matériel bi mais aussi alentour yi yëpp waxtaan nañ ci maanaam bu komba amee nan la ñu war a mën a taxawee ba nga xam ni kaaraange en tout cas euh, dina mat bi ñu waxtaanee Euh, am na yu ay proposition yu bëri maanaam yoo xam ni def nañ ko ñoom aussi euh, ay ndaw lañu dañuy dellu ci seen ay kilifa waxtaan ñoom euh, bu ñu toogee ba am proposition yi je pense que dinañ ko partager avec waa CNG xëy na ak CNG di décider ak promoteurs yi pour ñu waxtaan loo xam ne daal bu ñu ko tegee yaakaar nañu xew dootul xew dina amee xew maanaam ci wàllu sécurité pour que lii dootul amati sport nag ah dafa lu ñu tubaab di wax fair play moom mooy ah nit ki nangu ni sport gagné donc loolu ku ko def rek di nga di nga mën a mucc sport loolu nag dafa loo xam ne dañu war a woote boo xam ne ñi organiser war nañ war nañ ko euh, euh, bëri lu ñu koy def bu ñu ñëwee di seetaan si vraiment ñu xam ne dañu ñëw ah, pour faire du sport dañu ñëw pour seetaan si làmb correctement dañu ñëw pour toxal làmb waaye ñu éviter non peut être kilifa yi président république décidé ni damay def lii pour la lutte ah, muy arène bu mel nii commencé guñ ci sax ñu commencé di yàq li Sénégal yi foo tourné tey loolu la ñuy wax et yaakaar naa ni fii lay yem incha allah. gi su ma la laaj en tant que directeur de infrastructure tey saisi fi yi ñu fiy damm depuis boobu ba tey yow calculer nga nombre bi askan bu dammee dañ koy sensé waat wala nangam nangam. waaw fi mu nekk nii euh, euh, xam nga fi bu nekk ñu ngi fi ak suñu mbokk euh, partenaires yi nekk République populaire de Chine ñu ngi fi ba léegi pour accompagner état bi si lu ñu tuddee coopération technique. effectivement ba ñu commencé làmb ba léegi ñu ngi naan. ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-benn seize. téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar fukk ak juróom-benn seize yàq nañ ko fi muy nañ ko fi damm nañ ko fi te lépp dañ ko remplacer. am na nag yoo xam ne yi ñu mujjee damm bu ngeen xoolee gis ngeen image yi mat na 90 mais kenn ñu ngi def pareeguñu nag parce que ñu ngi def euh, inventaire bi bu ñu paree nañ wax ñaata la mais loolu lépp bu ñu koy alal la alal boobu xajoon na feneen ci yeneen investissement yoo nañ ko waaw te loolu lépp euh, gis nga loo xam ni organisateur dañu par dem seen yoon tëdd xam nga loolu état bi mooy jël ak suñu ko daal di koy remplacer te loolu nag am problème je pense que ak waa CNG ak euh, promoteurs yi ñoom a rafetee parce je pense que muy promoteurs yi muy CNG muy lutteurs yi ñun ñëpp lu ñu yëkkati moom mooy muy ministère des sports li ñu yëkkati muy état du Sénégal li ñu yëkkati moom mooy sport bi jëm kanam mooy làmb ji jëm kanam donc lu ñu def rek. dañ koy waxtaanee pour essayer trouver solution boo xam ne làmb ji moo ci gagné làmb ji rek moo ci mën. dimanche prochain làmb am na fi incha allah rabbi mën nañoo xaar leneen lu bokkul ak li ñu daan gis ci arène bi ci combat yi fi ama ah waaw sécurité beeg côté organisation bi yooyu. waaw loolu je damay bàyyi waa CNG ñoom ñooy appliquer règlement bi ñoom ñooy organiser ak les promoteurs dañ la tontu bu soobee yàlla. kontaan ci yow merci.